abdaa lii annahu laysa mahrabun si waa baabikal xaami madatu yu dayiti li tax fire lii yaa rabbi min kulli zallati li ma doon wër yëpp yow laa doon seet ku ma dem xam ne du moom bam leer ma bama ma xam la ne yow yaa yow ma di la jéggulu ci ñi ma demoon di la fa seet dem ngi ma fa dem nga baal ma ko xaaraaniwu ma yow laa doon wër nekke nekkoo fa yaa ngi nii jéggal ma ko nag lii mooy affaire nit day xool ki mu àndal bu dul waaj a nga wàcc ko da lay tàddeel jox ma may lekk jox ma ma sol jox ma ma dëkk ti doo doo defal dara jaru ko kon sëñ bi kon sëy sëñ bi at tayibaatu li tayibiina wa tayiboona li tayibaati alxabisaatu bu la neexee lil xabisiina wal xabisuuna lil xabisaati yàlla ne na wuyu bu góor wuyu bu jigéen ñooy sëy wëlli yu góor wëlli yu jigéen ñooy sëy ah sa doom bu dee ko am kaay nag ñu waxtaan Oustaz Boubacar bu ma nëbbu nag bu ma nëbbu xamante nañ bu ma nëbbu de soo amoon xale bu bu ma nëbbu nag yàllaa ngi la tiim de yow laa wax waaw soo amoon doom bu jigéen di di mali di sa doom kii moo may monteel sama émission yi muy Didi may baayam dama koy jaay di waaw xaalis bëri ku ko amul kay jarul ngay ñëw waaw man yi boobakat yi wax ne ma ci ndax xam naa ni amu fi foo gisee jigéen ju baax fii senegal ma bëgg sa doom te awma bëri xam nga man jaaykatu radi la ak galaasa man fi mu yoruma dara faqiree ma tani man galaas ak ndox koor gi du jar sax galaas bi moom dana jar ci koor gi waaye ndox ak ay radi booy soxla wuñ ko non non galaas gi moo tane tane tane Macky nag maa ngi ko doon jaay ba léegi jëndul bu fi toogee ba wàccati jëndul du baax ci moom na jënd waaw ah président ah du day def ngir yàlla rek day ñëw Tiwaawoon kaare otom ànd ak jabaram soxnaam bu ñëwee ma jaay leen këram ji damay jaay rek di ti seen carte yi ñuy voté buñ ko jaay ñun duñ ko jënde am déet kon ñu ni suñ këram yi waruñ ko jënde ku lay jëndal danga koy jëndal nag ay nit dañ ma oo conférence ci fan yi may leen dikkuma ñaar moom banaa ko sëriñ bi Boubacar soo feebaree kenn du la seetsi soo xewlee kenn du fa teew kon boo feebaree doo ma gis boo xewlee doo ma gis al jasaawul ihsaan ilal ihsaan yàlla ne ki nga xam ne boo xewlee woo ko mu ñëw teewal conférence la ba mu jeex mu dugg otoom ak coonoom ñibi su feebaree yor yëg méttitam euh, tëdd ak méttitam waaye waay goreel bu xewlee nga dem bu feebaree nga seeti ko su dee gàmm la fanaanal ba bët seen nga tàggu ko wan ko ne ko lang ma defaloon mu ngi nii hal jazaa'ul ihsaan illal ihsaan ma ne ko conférence uma maa lang xam nga de ñaata conférence laa def ñaar waaye yow déedéet laa lay wax damaa bañ teyri muusante xam nga lu tax ma def ko ay xale lañ te dañoo nangoo daan seen doole muy comme yéen sidi léegi leen ngeen ñëw fekk ma feebar du tee dama leen di defal parce que ay ndaw yu bëgg a liggéey ngeen bu ko ñaareel amicalu jigéen ñi nekk ca Saly mairie bu ndaw la ti maa leen ko daan defal at mu jot ñaari bii samedi la bii dimanche ma pare ca benn lay defaat bu fekkee suma borom d'accord na ci mooy bi mujj ci koor gi Kaolack laa jëm ñetti conférence ñaari wóor na benn bi wóoragul ah bu ma feebaree Babacar doo ma seeti suma ma xewlee doo ci ñëw te loo ne maa ca gën kon faale woo ma léegi nag soo amoon doom aw ma de ma nopp ko ñuy ngoro noo ana xaadim xaadim mi jóge Europe yor ay millions bëgg sa doom dara yoroo ko yow Babacar xaadima ngoog Iran ngoog Iran faqiir xaadima xanii xanii mooy ko oomal faqiir mooy ko amul dara ku doylewul sa doom yow boo yow boo ma nobee xam nga gis nga yow boo ma nobee faalewu fa man mi amul nga bëgg nga naan Iran lañ nopp nag faalewu la xaadim mii lay nopp moo yor koppar waaw bu ñu fa yeggee foo jëlee doom ju baax man ma defoon ne sëy jigéen ja ciy xalaat am doom ju baax bi ma yóbboo sama yaay maa ko waxoon naa leen ko bi ma seeti sëriñ Abdoulaye Al Amin moom lañ ma jox moo ma yar lu ma xam falaa ko xamee génn gu ma daara ja bi mu nelawee raw doom doy na ma wéttal du ma seeti benn sëriñ soxlawuma ko sëriñ Abdou rek Al Amin rek doo ci benn saal jamais bu ma doon yëlwaani sax ci sëñ Abdoulaye toog mënuñ ma ko jox mu faatu mu ne ci raw doom yàlla di ko won may dem feneen ma ñëw fekk ko ci saal mi toog ma ne ko papa na nga def daf ma yaboon nag mu ne ma Ibrahima lu xew ma ne ko dama lay ziar si mu ne ma yow ak ziar yi net ak ma damay bëgg a génn ma ne ko ah, dama am lu ma lay wax mu ne waa ah, lan la ma ne ko damay yóbbu sama yaay màkk mu ne ma yow mii ma ne ko waaw. mu ni ma Ibrahima yow ma ne ko waaw mu ni ma loolooy màkk di sëy di sëy ba jur fa doom ju la yóbbu màkk màkk joojoo wér sa jëkkër bu la yóbboo du du ndax doomi jigéen ni yow moo la yóbbu màkk jëkkër du doomu jigéen mu ne ko waaye ki nga jur yóbbu la màkk yaay sa yaay yóbbu boppam màkk loolooy màkk waaye jigéen ju yiw góor gu yiw doom ju yiw yàlla ni góor gu yiwadi jigéen ju yiwadi doom ju yiwadi jigéen ñi nag sëyeetu ji nga danañ la téléphoné sax naan woy woy Iran moom day saboté rek waaye xam nga ni ñun dañuy sëy ngir doom ju wax dañuy fen maa la ko wax waxuñu dëgg parce que sëy bi amul benn góor ma laaj leen ñun góor ñi fi toog xaadim damay laaj de tontu leen ma ngir yàlla yow am nga soxna amagoo ko xaadim am nga ko sa diggante xaadimu rasul mii sa sëriñ laa lay laaj ndax ba nga koy bëgg di ko takk limaale woon nga doom ju baax waaye xalaatoo ko ah c'est ça est-ce que moom boo demee ni ko Iran la ko laaj ne ko nee na ba nga may nopp ndax calculer woon nga ci doom mu ne ma tontu la danaa non waaw sëy boo loo calculer wul euh, ci biir sëy bi noo ko ci jure inna ma la amaalu wa innamaa li kulli imri'in yonent bi neen li nga ci jublu nga ci am yow njoolaay beeg wangeeg xees geek rafet gi moo la ci doon rey nga dugg ci amul benn góor buy takk jabar xalaat ca doom ju baax amul jigéen juy sëy xalaat ca doom ju baax jamais ñun nangu nañu yéen ñi seetaan bu ngeen nangoo yéen a xam su ngeen nanguwul yéen a xam yàlla xam na sëy kay da nga naan man daal ndaw si et pourtant yow mi ma laaj Babacar fas yi bokkuñu course yi amul mbayaar am am déet amul fuutanke amul naaru góor est ce que ñoo bokk fay bokkuñu ko de demal ci xari amul laadum ah <laughs> seer na de doom ji ci biir bi xaalis bëri lañ koy jaay waaye xaraam na daganul ëmb kenn du ko jaay mango ju ñoragul kenn du ko jaay lu xaayagul mooy xarar daganul xar mi ëmb nga jaay doom ji daganul jaay mën ni yu xar daganul kay tëbul ma sama xar ma fay la dagalul boo demee laadum yaa nga fa man gis naa laadum bu jur doom du ko jur muy dox di di këlëng-këlëngi waa ji fey ci cinq cent mille ci sa doom bu jigéen ki ko takk fay joxewu ci cinquante mille trente mille la jox naan defal ma farate rek ba jamono baax te bu doon xar waa kenn du ko nangu nga def ci xar cinq cent mille def ci jigéen cinquante mille ñu génn sa kër xar muy jar cinq cent mille génn sa doom bu jigéen jarul cinquante mille nga jël sa xar dugal ci uddu ba ne laadum la sang collier fuddal ku bëgg doom bu baax ñëw ci yow mu tëbul la ndax mu jur doom bu baax yow ngay takk jigéen utoo ca doom bu baax yow xara la gën ah? xara ko gën fuuf raas baax na waaye ci nit la rawati raas baax na ci nit la rawati xoolal jigéen bu lay ñaanloo man ñi may ñaan mënumaa ñaan nag dañuy ñëw wan gannaaw seen doom bi ma nekkee ci tànt bi ko ñëw day indi doom ñaanalal ma ma ñaanal xale bi te moom du ñaanlu jigéen moom na doom ja baax rek na doom ja mucc rek waaw jur yépp am raas ba ci ganaar gara ganaaru Hollande am na waaw ba ganaar nag yi sax am na raas élevage am na gëbrë am na ndaama fas yi bëy yi sax da ko am kanaara mu ngoog Babacar nee na ak kanaara baromaan ñoom ñoom grand baromaan xam nga leen ay gaayen lañu waaw ñu ñëpp ku ne am nga raas te gis nga booy xool laadum doxinu raas lay doxe naaru góor doxinu naaru góor lay doxee raas bu ne day doxee raas doxinam man bi ma nekkee Saalum su ma bàyyi yónnee ñu jënd nagu gëbërë penku ku yu njool yu ponkal yi pour mu tëb géttam gi xoolal wëri raas ba fuuta ci nag Babacar waxal sa doom wëri raas jigéen sàngam de yaayam saykël la jigéen sàngam de yaayam jàmbaar la jigéen sàngam de yaayam ku baax la nga wax sa doom mu dem ci doomi kooku waaye papa ga papa na nga def sawa ki suma ki moom laay génnal quoi euh, mu ngi tudd euh, nu mu tudd euh, timloo quoi waaw sama ñoo bokk université di jàng dañuy génn daal père quoi mu bëggoon nga dem seeti papaam ñu may ma ko parce que nopp na ma ah. te ñetti fan yim ñëw sa kër moo gel bee ànd ñëw fi te ñooy bokk nit luy ndeyam ti maye maye guñ ko ko xam nga ne ndaw si amul kilifaay sa doom jee gën a ñàkk kilifa ñëpp ti moo la gën a yab ñëpp di fanaan ak jongama ti yow wóor na leen a ko